Eh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di nuyu nit ñi nuyu islaam moo di ñaan yàlla yàlla yàlla dollil ñu mucc yàlla suñu borom yàlla dollil ñu barke yàlla suñu borom yàlla dollil ñu yërmande mucc googu ak barke googu ak yërmande bi yàlla suñu borom subhaanahu wa taala sotti ko ci bëpp xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu nekk di ñaan yàlla feebar bi nga xam ni moo di covid 19 moo di mbas mi yàlla na suñu borom subhanahu wa taala teggil ñu ko yàlla na yàlla boole ñu ci ña nga xamante ni nii ñuy mucc lañu incha allah yàlla yàlla teggil ñu ko ba kenn ku nekk delluwaat ci ay yitteem incha allah jaamukatu yàlla yi ñun ñëpp kenn ku nekk liggéeykat yi eh, ba xel yi dalaat ndax jàngale na xam xamle nit moom du alal nit du lenn lu dul jàmm jàmm moo xëcc doomu aadama kon jàmm jooju yàlla na suñu borom yàlla gën a dolli ci addina bi incha allah nekkoon ak yéen ci Hann TV ci jotaayu koor ànd ak yéen Hann TV jotaayu koor nekkoon ci waxtaan gu am solo wala fàttali gu am solo fàttali googu moo di e, topp say waajur yow doomu aadama man mii di wax yow mii may déglu ak yéen ñii nga xam ni yéen mu yéen may déglu nga jàpp bu baax takk bu baax alquran moo la digal topp ay waajur alquran moo la tere toroxal ay waajur wala mooy ay waajur moo tax sax ñu tàmbali woon ci waxtaan googu ñëwoon ci yéen ba nga xam ni sooy waxati ak waajur yi na leen wax wax ju nooy na nga wax ak ñoom wax ku tedd na nga wax ak ñoom wax ku koo xam ni wax ku torox nga toroxal sa bopp ba ñu yëg ne yow daal am benn yëg-yëg boo xam ni yow moom teral nga leen ah, moo taxoon alquran di wax ne qul lahuma qawlan karima mu ne waxfid lahuma janaxa dulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira alquran ne waxfid lahuma janaxa dulli min arrahma nee na say waajur na nga wàccee say laaf laafu toroxlu nga toroxlul leen wàccee sa bopp ak koo mun a doon ak noo mun a mel waxoon naa la division ba nga xam ni léegi tubaab bi divisé nañu ko ñu nekk ak suñuy waajur di leen yërëm di leen nemmeeku di leen xool di xam ci lu ñu nekk waaye léegi ku nekk dem na a ah, benn kenn ku nekk wetu na bopp bopp ci boppam am na ñu koy jëf sax di ndeysaan yóbbu nañ xeli bu yàgg waaye xamuñu ko ah, ñu xam ne waajur lu am solo la alquran ne say waajur na nga leen wax rabbi irhamhuma yow sama borom yàlla borom asamaan ak suuf yàlla na nga yërëm sama ñaari waajur yi yàlla yàlla na nga yërëm sama ñaari waajur yi moo xam ñu ngi dund moo xam génn nañ àddina na leen ñaanal rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira yàlla yàlla na nga leen yërëm sama borom yàlla na nga yërëm sama ñaari waajur niñ ma yaree woon bi ma nekkee gone niñ ma yërëmee woon bi ma nekkee gone yàlla yàlla nanga leen yërëm rabbirhamhuma kama rabbayaani sagira kon doomu aadama ci loolu la war a di yëngu saa yoo jullee ñaanalal say waajur moo xam ñu ngi dund moo xam génn nañ àddina dee leen ñaanal ñaan goo xam ni ñaanu xol la ndax ñoom ñoo nekkoon ñu xiifoon ngir yow nga regg ñoom ñoo nekkoon ña nga xamante ni nii ñu fagoon lañ guddi duñu nelaw ngir yow nga nelaw ñoom ñoo nekkoon ña nga xamante ne ñu doon sonn lañu ngir yow nga am euh, nga am euh, nga bañ a sonn maanaam nga am noflaay ñoom ñoo nekkoon ña nga xamante ni nii dañoo jaay seen lépp sonn ngir yow kon nag da ngaa war a delloo si sa xal xam ne say waajur <coughs> amul lu leen gën ci kaw suuf say waajur ñoom la la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nang leen topp waa ji bu mu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan laa war a gën a mun a defal njekk yonent bi def ko ne ummuk mu ne ak kan yonent bi ne war ko ummuka mu ne ak kan yonent bi ne ko ummuka ba muy ñetti yoon yonent bi door ko summa abuka bu <laughs> ñëwee yaa laaj yonent bi njekk ñan laa ko war a defaral yonent bi ne ko sa yaay mu ne ak kan yonent bi ne ko sa yaay mu ne ak kan yonent bi ne ko sa yaay mu ne ak kan yonent bi ne ko ak sa baay kon ñoom ñii njekk daal ci ñoom la jekkee kon daal nañu bàyyi wat suñu xel bu baax xam ne ñoom ñooy ña nga xam ni ñoom la yàlla jël ne ñii ñooy say waajur ñoom bëtu yërmande lañ lay xoolee daayiman ak noo mun tamel ak lan lépp luñ la war a mun a def da nga leen xoolee bëtu yërmande nga gis ci kaw loolu am benn nettali gu am solo <clears throat> euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko nettali ndeysaan ñetti nit ñoo xam ni dañoo jógoon ci jamono yu yàgg yonente bi dañu ko nettali ngir ñu xalaat ci dañu jóg dem ci àll bi ndeysaan bu ñu jógee daan tukki di dem ñuy dem rek di dem dugg ci àll bi ba guddi jot maanaam ba ñu guddee ci àll bi ab xiin gu metti daal di xiin ndox mi ngelaw mi guddee nañu ci àll bi lañ nekk xamatuñ sax fuñ jëm ñu gis benn xeer gu mag xeer bu mag mag la mag la xeer gi nag ñu koy wax doj yu mag yi wala xuntu waaw am am am am am foo xam ni ñoom ñëw nañu ñu ne ah est ce que duñu fanaan fii ba ëllëg ndax ndox mi bari na de ngelaw gi bari na de lëndëm na de amuñ xamatuñu fu ñu dem nañ dugg fii ba ëllëg ñu daal di dugg ci biir xeer bi dugg buñ ci duggee nag xeer yu mag mag yi la buñ ci duggee ba ci biir nga gis ne ñu ne fa tuuti rek am benn roche bu jóge ci kaw benn xeer bu jóge ci kaw fekk taw bi metti na daal di ñëw ba ci bunt bu ñu duggee woon ci xeer bi daal di seen rek dal ci xeer yu mag yooyu bu mu ci dalee xam nga ñoom mënuñu ko déplacé moom mu ne dugg nañu ci biir mu tëj ko nag amatuñu fu ñu génnee ndeysaan daal di xool xool xool ñu bari tiit kenn ku nekk xam naa muy xalaat ne man daal sama dee tey fii la ñu daal di toog ba yàgg gis nga lislaam ñoom suñ demee ba jàq rek dañuy toogaat seen biir am amruhum shura baynahum dañuy daal di toog Ah, diisoo seen biir ñoom ñett moo tax mbooloo mooy doole ñu diisoo daal di toog kenn ku nekk joxe xalaat ñu ne ah léeg moom mooy ñu fexe def li ñuy wax tawassul maanaam jege suñuy borom si suñuy jëf yu baax ya nga xam ni jëfoon nañu ko ñu jegee ko suñuy borom suñu borom mën nañoo génnee ci situation bi xalaatuñu leneen lu dul yàlla gis nga de yàlla rek la ñuy xalaat ku so sonn jàq allah subhanahu wa taala kese ngay xalaat moo tax nag doomu aadama na am xel doomu aadama ne yeewu xel bi ko suñu borom subhanahu wa taala jox ngir xalaat la bala ngaa jox kenn cër joxal allahu subhanahu wa taala ba noppi keneen door am mais am na koo xam ni tey mun naa fàtte yàlla jël cër bi yëpp delloo ko feneen waaw waaw déedéet delloo ko suñu borom subhanahu wa taala nga gis ne bu ñu toogee diisoo ba noppi waxtaan ci loolu ah ñett lañu kenn ki ne man de amoon naa sama ñaari waajur te musuma lekk ñam mas musuma mos ñam ci kaw suuf lu dul fekk na ñoom lekk nañ ba regg ma dool a lekk dama doon xëy su ma demee yaxantu ji ba ñëw bala maa lekk sama njaboot lekk samay ñaari waajur faw ñu lekk ba noppi waa ji nee na ndeysaan yàlla loolu de su fekkee ne ngir yow yaa sa jëmm ja taxoon ma jëf ko yàlla génne ma ci situation bi mu daal sax nettali mu ne suñu borom muy muy wax di wax ak allah di wax ne am na benn bés boo xamante ni nii sax damaa ñëw fekk sama waajur ne të tëdd nañu ma daal di indi mbir mi bi ma indee mbir mi ba noppi taxaw munu ma leen yee ngir yërëm leen ma daal di taxaw rek nee na sama doom yi ñoo ngi daw rek di di di yuuxu xiif di xëcc sama tànk ngir bëgg a jël li ma yor pour lekk ko man leen mukk ma fexe taxaw fa ba samay waajur yeewu ma jox leen ñu lekk ba regg ma door a jël jox ko njaboot bi allahu akbar xoolal loolu ne yàlla situation bi bëgg nañu génn nga génnee ñu ci suñu borom subhanahu wa taala daal di leen may xeer wi daal di ubbeeku mu des keneen ki ñaar lañu euh, ñeneen ñaar ñu des ñett lañu ñoom tamit kenn ku nekk am na fu mu jaaroon waaye comme liñ ci soxla woon mooy euh, toppatoo say waajur waaw ñoomu loolu am na beneen bi nga xam ne toppatoo say waajur yonent yi yu dan nañ ko def yonent yàlla nuux يونتي على ابراهيم يونتي على محمد صلى الله عليه وسلم يونتي على عيسى يونتي على يحيى نيوم نيب كين كو نيك واخناكو يونت نوح لومو وخون ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونت على نوح عليه السلام دا فا واخني كات يالا يالا ما يرم واي يالا نغا يرم علي سماي واجو yonent yàlla ibrahim moom tamit loolu la wax rabbi xfir lii wali walidayya walilmuminina yowma yaqumu alxisaab yàlla yàlla nag ma jéggal jéggal samay waajur jéggal mboolem jullit yowmal qiyaam suñ fa ñëwee yàlla nag ñu teral xoolal yonent yàlla ibrahima lu mu wax xool yonent yàlla ibrahima baayam yéefér la woon mais bi muy woo baay ji ñetti woo ya abati ya abati yaa abati ñetti yoon mu koy woo nan ko yàlla baay baay baay kay dugg ci islam mais xolo wax ju tedd googu bi mu ko doon waxee bi mu demee ba xam ne baay ji du ko ne salaamun alayka sa astaghfiruka rabbi yal na yàlla mucc mucc yàlla nekk sa kaw dinaa la jéggalul sa borom nga xool ne gisal loolu moo tax suñu borom fay ko yont yàlla ismail alayhi salaam moo tax bi mu demee ba bëgg ba yàlla won ko gént gi mu war a rey yont yàlla ismail xoolal la yont yàlla ismail def ak moom yont yàlla ismail dafa jébbalu jox ko boppam ngir li mu teraloon ay waajur moo tax arab dañuy kamaata diinu tudaanu nit ki lépp loo xam ni moom nga leble suñu borom nee na loolu lañ lay fay nit ki lu mu leble arab yi nee looy nit ki leble loolu lañ lay fay kon ñu bàyyi ci xel ñoo ngi ci waxtaan ci ay waajur ba tey des na lu bari dañ ñëw ci yoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama nu mu fonkee woon maanaam bi mu ñëwee dundawul ak ay waajuram waajur góor bi muy génn àddina mu ngi ci biiram waajur bu jigéen ba bu mu juddoo ba yàggul dara waajur bu jigéen ba génn àddina mais da doon toog di leen xalaat di wax ana samay waajur yaa layta shi'ri maa faala abawa abawa abawaaya yaa layta shi'ri daan na wax wax jooju wax ju am solo ci yàlla Muhammad ànd nag saxaaba yi ñëw ba fekk bàmmeelu waajuram mu toog jooy ba ñëpp ñu àndal ak moom jooy mu naan kii de bàmmeel bi mooy bàmmeelu mu ngi tudd Amina kii mooy yaayu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu bàyyi ci xel bu baax ay waajur lu tedd la dinañ ci ñëwaat ak yéen incha allah ci jotaayu koor waxtaan continuer leen ak yéen ci ay waajur آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته